da ko bàyyeel sa bopp bàyyi kook boppam. waaw président dafa président moom dafay day day dérouté nit de parfois mu jël ay décisions yoo xam ne kenn xaaru ko. waaye waaye du tee bàyyi naa kooku daal bu ko nit ñi di xaar fii mu dem fële. <laughs> déedéet déet déet kooku <laughs> débat boobu moom mënuma cee dugg kooku yow tu man sama man sama kilifa la sama. c'est c'est xam nga président assemblée nationale. amul benn sénégalais bu mas a toog xalaat ne dinañ mas a am président assemblée nationale bu tudd Amadou Mame Diop dañ doon wax Amadou Ba Aminata Touré Abdoulaye Daouda Diallo mu génneel ñu sous son chapeau eh, ki nga xam ne moom mooy eh, Amadou Mame Diop. waaw ah, nañu xaar rek. ah nañu xaar rek. dafa fort ci loolu de. waaw nañu xaar rek. ah waaw mais mais là mi ngi mi ngi xalaat bu baax quand même et euh, je pense que mi ngi consulter et ça c'est bien que muy wax ak ñëpp. jël Moussa président Moustapha Niass avec son expertise sa sagesse waxoon na wax ak euh, ñi nga xam ni euh, am ñu importance ci affaire jàpp nañ ni ñëpp ci am importance jàpp nañ ni am nañu euh, dayo ci mbir mi que ñu ñëpp ñu woo leen et l'objectif c'est moins de parler de à mon avis man bi may wax ak Moustapha Niass c'est de tout faire pour que ñu doon benn say yow union bi moo la yitteel c'est que y de voie de salut pour koo mënti jël sans l'unité c'est pas possible donc tous les problèmes de personne lenn problème yi jéem a créer jiw moo wax li jiw moo def nii loolu amul njëriñ li am solo li am solo mooy ànd done benn gagner ensemble gouverner ensemble et le président a donné la leçon aujourd'hui parce que dans tout ce qu'on aussi bu ñu ci bu ñu bàyyi ci ginnaaw les Sénégalais vont choisir aussi il faut que tout cela soit aligné li nga xam ni président bëgg na ko li nga xam ni président analyser na ko ñun confiance biñ ko biñ ko def et le président il mi ngi discuter ak ak kilifa yëpp et je suis sûr qu'il va nous donner la meilleure formule. en tout cas yàggatul fii ak dimanche lay doon. waaye yow sax yaa may jàmm wax loolu man xaw ma kañ la. <laughs> on va prendre le risque de faire un pronostic man. Euh, damay déglu damay waxtaan ak ñu bari. di déglu réew mi di déglu ñu bari. man li ma li ma njort. mooy ne président jël na décision ba pare loolu laa xalaat et yow la. non xam nga Maïmouna je peux pas être aussi péremptoire mais li ma la mën a wax. li am solo. non bàyyil ma assumer loolu. man maa jàpp ne kooku sa décision. jël na décision ba pare kooku yow la. et que yow et que à quatre-vingt-dix-neuf pour cent xam nga Macky dafa ay nag. ci décision de des na un pour cent moo tax nañu <laughs> des na non non non xam nga euh, Maïmouna euh, gis nga dafa am loo xam ne c'est extrêmement important ci réew mi la ñuy wax muy benn ñaar le président de la République li ko yitteel fi mu nekk. et boo gisee bëgguma dugg ci ay débat de personne j'ai quand même le privilège d'être son premier ministre gis nga fan yi passé en conseil je ne trahis pas les secrets il me dit monsieur le premier ministre il faut qu'on arrête toutes ces routes qu'on me fasse nañu fay bourse de sécurité familiale est-ce que gis nga cette sensibilité sociale mais ku jeexal war a dem tu te soucies du bilan matériel ou bien même am na ci réew yoo xam ne gis nañ ko tu ne même pas du bilan il te dit nañu dimbali ñi nga xam ni ay néew doole lañu c'est une priorité absolue j'appelle les ministres je leur dis écoutez la décision et l'orientation du président ola mais met en œuvre il faut qu'on paye les bourses maintenant le gouvernement mooy ñun il faut qu'on les dispositions pour que tous les chantiers arrivent à terme ci délai yi. mais président daf ci am intérêt. non si daf ci am intérêt euh, am na ci intérêt ndax bu ala ca cappaandaw ba. non non du defal ndànk moom bu bilan bi baaxul. ay ñooñam du ñu am benn chance. le bilan est de déjà, diriger ce le, pays là le, le bilan est déjà très bon. et lui il a tout intérêt. non à ce que ñooñam. non non remplacer ko ci bopp réew mi. c'est c'est ce qui va se passer incha allah à ah. la seule condition si on est unis. donc ba parce que xajuñu non on va travailler jusqu'au dernier jour jusqu'au 2 avril bu ci yàlla àndee même bu ñu élire président dañuy liggéey le pays ne peut pas souffrir d'un seul jour de. non travail c'est pas normal waruñu ko def. mais li am solo c'est l'unité li am solo mooy nañu yéenante jàmm li am solo mooy nañ jàppante surtout nañu warumal président te déglu ko xaar ko parce que ñu ku nekk ci ñun war nga fexe ba say wax dëppoo say jëf. maintenant le reste de la politique diw il est loyal diw il n'est pas loyal diw il est noir diw il est court ça ay waxi euh,